ma jàkka dëgg lay bayit maam jaara sa jëf ju rëy ji ku ko xam sag waayaara ma jàkka dëgg lay bayit maam jaara bayit mam jaara ku ko xam sag bu sama dëgg dëgg lay béy Mam Jaara sa jëf ju rëy ji ku ko xam sag waara Soxna Jaara Buso ترى ويا عادرك انت يباك يا عيوتك مو أبقاك طيبك تايا نجار يا دروي يا جرك انت عيبك خادم أبقاك طيبك تايا شفنا دار يا دروي يا جرك انت يباك تقمو ابقاك baktaayoo ko jeeg sa jëf ji kenn fekkule ci waaye sa pay ji kenn fekkule ci am Sëriñ Basiru ëllëgëm ay dogalam lu dogal mu neex la toppay ndigalam ami Seex Muntaxa na jaram am dara gëm nga ëllëgëm ay dogalam lu bëggal mu neex la toppay ndigalam tey bàkk taayoo na jaara as gor nga mu len nga taatu yaaram nga ñàkk sikk yow moo yaraanga sëriñ Basiiroo na jaara as gor nga muy kër nga saabu yaaram nga na ñàkk sikk yow moo yaraa nga am Cheikh Modou Moustapha jaara na jaara sa dul gee gàtt te fees dellu lu gàtt gàtt teewuloon lépp a nosu dellu buso na jaara saadi néew na waaye fan wi gudd na yéen a daata nu sa lépp sell Fàllu Buso na jaara saadi néew na waaye fan yi gudd na yéena daata nu sa lépp sell waaw lu gàtt gàtt teewuloo jaara ngir fanu gàtt moo di jëf ju tëkkuwul a rafetul lu tëkku nga jëf yow te rafetal lu bu soo teewloon na jaara semal nga gaaya dundi xar nu sellala ci xam-xam te juboon te jaamuwoon dellu buso na jaara sama nga gaaya dundi xar mu seet ku ci xam-xam te juboon te jaamuwoon subaali borom poroxaan na jaara budul ko na gi yow bu soo dara dulu jar bu ci waral sunu ko texe yaay ki ko juróom te lu bu lu gàtt gàtt jaara ku dul ko lay yow bu soo dara du jara ki waral sunu ko texe yaay ki ko juróom soo baali borom poroxaan ma jaar jur nga ku kenn jurul kenn amti ko la woon képp te yàlla jox la ko jula ku kenn amul kenn amti ko maam Sëriñ Basiru jur nga ku kenn amul kenn amti ko kon képp te yàlla jox la ko mooy Cheikhul Khadim bay basak baara ni danak Cheikh Mbacké dina jaara sangoora ak sak farlu ak sak jagle yàlla def moo ko may yaa jagle kenn amul kenn am ti ko

yàlla def moo ko may yaa jagle borom poroxaan kenn am ci ko ma tudd la fi ci say jikko maam jaayaara te ñu roy la jéema sam fi daara maam jaayaara dañu rëy la jéema sam ci daara maam jaara maam jaara buso sa jikko la woyof te diis gën rëwet yow sa jikko la Maam Jaara na jaara topp ndigal te dëggaloon sa kilifa dogu tey muñ ba lu rëy fekk la faayaat man yàlla fayal maam jaara na jaara yaa sam yaa gore ta daane dimbulee

te kër sa taara gën buur yàlla te dëggu sul na boole kook am fulla naam bu sa baali dawloo xeex ak xul soti boo dee ka jëwit yaa sellu xol kexa ka xul mosoo di boo dee ka jëwit na jaaram naam bu so baali dawloo xeexa ka xul bu so di boo dee ka jëwit yaa sellu xol neexa ka xul ma soor di bodde ka jëwit yaa sell xol na jaara ma soo añaane kenn nit te siisu la reyu la sa lépp a mat mankiw la siisu la te reyu la dara ma soo añaane kenn it te siisu loo reyu loo sa lépp mat mankiw loo na jara yaa sa ña bàkku yow sa baat te ba ma ko jur li nga am li ci góor ñi xamu amu ko yow li am mi ci góor ñi amu ko kenn maami yow li am mi ci góor ñi maami Seex Mustapha yow li nga am li ci góor yi amu ko kenn maami Sëriñ Fadilu yow li nga am li ci góor yi amu ko kenn maami Seex Sidil Muxtaar yow li nga am li ci góor yi amu ko kenn na jaara yow li nga am nit yi góor ñi amu ko kenn na jaara sa jëfa tax ñu nuy sukkal tey raamal di nu abiyaal di déglu sun ndigal ca ba ma ko li nga am kenn ci ko jara sa coono jëf yi moo waral xewal yi tey wàññi ron na raw nga kuy takk tubay soxna jaara siggin te rëy na jaara jox naa la saa di nga bu kumba see awara woo di yaa may ndaw see ba ma ko yow li nga am soxna jaara jox naa la saa di yaa may ndaw see ma ko yow yi nga am kenn bu sobaali jox naa la tumbi dikk naa la fekk see awara topp ma di jam ngay gor see ba ma ko yow li nga am kenn ci góor soxna jaara jox naa la tumbi dikk fekk see awara topp ma di jaam ngay gor see saña baat bu yaw sa baat dafa ma ko dafa ma ko yow li nga am kon na góor ñi summi seen tubéy waa du jee sa doom rekk di góor mat nday jeex wuddu ji ngir yaak sa doom na jaara yow ak sa doom rekk di góor nu di jigéen ñi ci des ñépp di fii wala fa nee waddu ji ngir yaa sa doom na jaara yow ak sa doom rek a di góor nu dooni nu doon ci rab ngay naaru góor nu dooni mbaam dooni jaam ngay naaru góor ci sobal yow ak sa doom rek di góor nu doomi jaar doon ci rab ngay naaru góor nu dooni mbaam sa doom rek di góor nu dooni jaar nu dooni jaam ngay naaru góor na jara ya jiitu góor ñaa jigéen ñi am ngandam ndam amul ci ñi ñëw ak ña ñëw ba dem am nga am nga ajiitu góor ñaak jigéen ñi am amul ci ñi ñëw ak ña ñëw nga ndam am nga ndaw sa kër maam jaara ak jiitu góor ñaar am nga ndaw sama amul ci ñi ñëw ak am nga ndam am nga ndaw sa kër Mbàkke naa la way la kañ la naa la sopp naa la topp naa la way naa la sopp sa baali tàggaraat te bëgg naa la maam sa Muntaxa man bàkk naa la way la kañ la tàggalaat bëgg naa la sopp naa la topp laa bàkk naa la way la kañ la tàggalaat te bëgg naa la man bëgg naa la ila kañ la tàgg laa bëgg naa la sopp naa la topp laa yaaya bëgg naa la ila kañ la tàgg laa tàgg laa bëgg naa la sopp naa la topp laa maami Sëriñ Basiiru bëgg naa la ila kañ la tàgg laa bëgg naa la sopp naa la topp laa sa cër bi tuutiwul sa jëf ji tuutiwul mun nga may nañu la sa dara xeebuwul la tëgg laa sa jëf ji tuutiwul sa cër bi tuutiwul nga may nañu la sa dara xeebul la sopp naa maam sa ji tuutiwul sa cër bi tuutiwul li nga may nañ la sa dara xeebuwul la tàgg naa la sopp naa la maam ba ngay dajey ween na ca kenn santuula waaye yëggal ni yàlla yi defaat teewula man tagla na jarab ba ngay dajey ween na ca kenn santuula waaye yëggal ni yàlla yi defaat teewula ثقلا سسر بزي مرماك خمس دينار عساكو بركة دول في فين الينام يالنا كو يالا فاي عساكو بركة دول في فين الينام مام تبالي تجوح قبل كفات سيدوكا xiyam na maas gi ñépp ñee ko tibbal seddu ko yomal ndax mu tàbbi firdawsi dëkk ak Seexul Xadiim ak képp kuy murit am xalbun saliim شيخ ما كيف كيمري صلى على خير الورى وسلم وآله وذابه وكرم صلى على خير الورى صلى على خير الورى وسلم وعز به وكرما صلى على خير الورى وسلم سلم